أنت في الأرض غريب هكذا قال الحبيب هب بأن العمر قرن أو عقود أو حقوب كلها حتما ستفنى ثم يجزك الرقيب فاعمل الخيرات دوما قبل ياتك المشيب كن صدوقا كن أمينا كن كريما يا لبيب كن بأخلاق الرسول ممسكا نعم النصيب عامل الناس بلطف داعيا كي يستجيبوا وضع maa ngi ñëwaat léegi ci kanam incha dafa am benn mbokk mooy seet si feeti fii rek ma daan faral di julli si ci jàkka ji waaye nag fan yii ñëwul ma laajte ñu ne ma dafa xaw a tawat ma bëgg ko seeti te ñëwaat léegi incha dégg nga bu soobee yàlla. bëggoon na la fee laaj sax dara. nga ma. lu mel noonu. Mhm. fani yi yëpp dama lay seetlu mhm. ngay dem ci mbokk mo ngay wax mhm. rawati na yi ci bisu takusan yi nii mhm. bëggoon laa laaj ñooñu dañ lay jox dara wala leen maanaam ñen ñen dañ may jox dara ñooñu ngay seeti dañ lay jox ah, dara ñi may seeti de leen joxuñ ma dara dama leen di seeti rek xal ma tok pour man la expliquer la maanaam Mouhamed boo gisee ku tawat rek ma dem seeti la wala sax yenn sax yi may seete ay mbokk nekkul dara lu dul dama gis ne ay bokki jullit lañ war naa leen a dem nemmi ko ngir gën a wéyal ak cofeel suñ diggante waaye it ngir gën a wane ne lislaam diine la joo xam ne dafa bëgg ñun ñëpp ñu bëggat loolu rek sabab may dem di leen seete ji rawatina bu ñu feebaree waaye nag danaa la ci waxal ñetti xaddis yoo xam ne bëggoon naa nga bàyyi ko xel bu baax bi ci njëkk ñu ngi ko jëlee ci Ali ibnu Abi Talib yàlla na ko yàlla gërëm xadis bi Abu Daawuda moo ko soloo aliyun jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ni yonente bi alayhi salaatu moo wax ni amul benn waay boo xam ne ab jullit la mu dem seeti mbokkum jullitam bu feebar maanaam ba mu koy def nag xëy na ci ngoon la ko def nee na bépp waay bu jóg ci ngoon dem seeti mbokkum jullitam bu feebar nee na yàlla su borom day yebal juróom-ñaar fukki junniy malaaka maanaam soixante-dix mille malaaka ñu ànd ak waa ji di ko jéggalul yàlla maanaam juróom-ñaar fukki junni malaaka yooyu dañuy jéggalu yàlla dañuy wax yàlla yàlla na nga jéggal waa ji di seeti mbokkam di ko jéggalul yàlla di ko jéggalul yàlla ba keroog suba di jot tayit yonent bay wax de mu ni tayit yiw wi nga xam ni waa ji fàggu na ko ci diggante boobu dana tax suñu borom dana ko ubbil ab tool bu yaatu bu naat ca biir aljanna nee na it su fekkee benn waaye dafa jóg ci suba xam nga ngoon laa la wax léegi waaye bu dee ci suba la jóg di seeti mbokkum jullitam bu feebar yàlla day yebal juróom-ñaar fukki junni malaaka ñu di ko jéggalul yàlla pour yàlla jéggal waa ji di seeti mbokkam di ko jéggalul yàlla di ko jéggalul yàlla ba keroog ngoon di jot malaaka yi doo ko bàyyi te ci yiw woowu yàlla dana ko ci utal ab tool bu naat bu yaato ca biir aljanna mooy xadis bu njëkk bi ñaareel bi it um, yonent bi moo ko jàngale ba tey yonent bi mu ni bépp waay boo xam ne jóg na dem seeti mbokkum jullitam bu feebar nee na yàlla day tàggat am malaaka bu koy woo naan ko an tibta wa taaba mamshaaka wa tabawwa'ta min aljannati manzilan malaaka bi di ko wone ko ah yow day jëf ji nga jëf nii yàlla dana ci neexal sa adduna ak sa alaxira waaye jéego yi ngay dox ngir seeti sa mbokkum jullit mii day yiw wi ci nekk ak lila ca sunu borom nar a fay day dana neexal sa àllaaxira lool tayit fàggu nga ci palaas bu kawe bu yaatu ca biir aljanna loolu la di wax xadis la boo xam ni ahmad ibnu maaja ak tirmidi solo bu mujj bi nag yonent bi moo ma sa toog saxaaba yi di leen nettalil benn xissa boo amoon ca jamono ji yàgg nee na benn waay dafa jóge ci dëkkam di seeti mbokkum jullitam waxul sax dafa feebar waaye mbokkum jullitam rek la dem di seeti ca beneen dëkk mi ngi mel ne que mbokkum jullit bu jóge Fass Barigo gii di seeti mbokkam ca Kawlax wala mu jóge Gosaas di seeti mbokkam ca Jurbel mbaa mu jógee pikin di seeti mbokkum jullitam Géejawaay mbaa mu jógee Tëngéej di ko seeti Kër Masaar yonent bi mu ni benn waay moo ko doon def nee na yàlla yebal malaaka mu toog ca mbedd ma di ko xaar ba waaja di dox ba agsi foofa malaaka mi ni ko yow fan nga jëm waa ji ni ko maa ngi jëm ca dëkk sàngam bi seete sama mbokkum jullit mu ni ko loo fay wuti xanaa dangaa daa am lu mu lay jox wala dafa am bor booy faye ko ji waaja ni ko déedéet wutuwuma fa dara ci wàllu adduna waaye dama koy seeti rek ngir bëgg ko te yàlla dongu tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko malaaka mi daal di wax ni man day ndawal yàlla laa gu ñëwoon ci yow ngir ma xabaar la ni la yàlla sa borom day nee na bëgg na la lool comme ni nga bëggee sa mbokkum jullit nii xadis boobu muslim moo ko solo maanaam yiw yii ma la fi nattaleel lo rek ka tax boko lego lego léegoo léeg takusan ma jullee tàkkusaan ba noppi defuma dara ma dem seeti ben mbokum julle ngir meuna fagu ci yiw yoyu loolu rek la waaye utiwuma fa dara joxuñu ma dara waye yiw wi ma ci yaakar motax ma diko def di ko bàyyiloo xel it ko nga diko def ndax amna solo lool ndax ñun liñu fa andi moy fagu aw sakku yiw jele ko ci sunu borom tawarak wa taala alayhi ne bul xeb dara ci lu bax lo yëpp ñu lu bax la rek defal ndax doko perte dégg nga ko naa ko faral def incha allah incha allah baax kon bu ci kanam rek incha allah dégg nga maa ngi ñëwaat léegi ba soobee واعمل الحسنات يصف حالك الكدر العجيب جالس الصالح واكسب ريحه عطر وطيب أصغي للنصح قبولا هكذا الصدر الرحيب واصغي للنصح قبولا هكذا الصدر الرحيب